Siteu gis naa ñuy jéem a taxawal combat am ak euh, Balla mais bu ko jëlee day daan. Siteu bu jëlee Balla Gaye day daanu day am defet maanaam fi mu nekk nii Siteu ginnaawam baaxul. dina Siteu gis nga carrière am fii lay defaroo waaye fii la mun a yàq Siteu nee naa la am na mbooloo yàlla may na ko sens boobu. waaye ginnaaw ba léegi baax ku dof dofloo ba dugg ci combat bi ñoom Aziz Ndiaye di ruumandaat nii ku nekk di ci wax sa xalaat nii mhm. ci ay pexe lañ nekk ak moom mhm. bés bu ci duggee dina am déception bu ko métti général combat boobu fii nga ñëwoon ñetti weer ci ginnaaw mën na la Siteu mënul fexe ba daan ki nga xam ne mooy Modou Lo mhm. parce que mustawa bu Modou Lo nekkee moo am doole lépp lu xew ci bés ba Modou moo ko def te Siteu mëntoon indi lu tax mu daan ko ànd naag ay mbokkam ñëw waaye indiwul lu daan bëri Hmm. mbër mi nag bul fàtte ne ay kilifa yu baax ñuy jëfandikoo kurus ñoo nekk ci ginnaaw. am na solo kenn laa ci ñi jëflanteeg hmm. moom ci wàllu ñaan. loolu bëri wax naa la na la jot naa ay saaga jot naa ay menaces jot naa lu nekk. du combat bi passé sax si ñoom ñenn ci ñoom. Hmm. na nañ ma combat cité bi bëgg na bëgg nañ nga liggéey. mën na du ma ci liggéey. parce que man yar moom lépp lu mu amul. ginnaaw leen nuyoo ziar leen TV tey ñu doxantu seet si Serigne Abdoul Aziz borom Kasf yaakaar naa xam ngeen ko baax a baax mu nekk koo xam te ko yar baaxal la ñu waxoon ci combat Modou Lo mu am vidéo yi mu ci defoon vidéo yi viral ku ne seetaan ko waaye nag jot na ci ay saaga yu dul jeex dinañ ci xoos bu baax a baax euh, combat Modou Lo Siteu jàll na Modou Lo daan na Siteu am na lu mu ci waxoon dinañ ci xoos waaye nag dafa am beneen combat boo xamante ne nii euh, gis nañ ne Aziz Ndiaye mi ngi koy dox. mu ne loolu bu ci dugg Siteu gis naa ñuy jéem a taxawal combat ak ki nga xam ne mooy euh, euh, Balla Gaye mais bu ko jëlee day daanu. Siteu bu jëlee Balla Gaye. day daanu day am defet maanaam fi mu nekk nii Siteu ginnaawam baaxul. dinaa ci ñëw ci loolu parce que dafa nekk lu am solo sëriñ Abdul Aziz moo ñu waxoon ne Euh, kii Siteu mënul fexe fexe fexe ba am victoire ci kaw Modou Lo. Mhm. waaye nag bi loolu jàllee may defaat présentation léegi mu ne ma Siteu bu jëlee Balla gay 2 dafay daanu. Mhm. dañ ci xuus. Mhm. waaye nag dañ koy bàyyi ne ñu continué waxtaan bi Serigne Abdou Aziz maa ngi lay ziar. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala maa ngi lay nuyu bu baax di la ziara di la dalal fii suñu béytu xaloo bi alhamdulilah bisimilah. am na solo sëriñ Abdoul Aziz mënul woon ñàkk ñu seet si la parce que combat Modou jàll na gis na ne defal nga ci liggéey bu am am solo. Mm-hmm. en tant que mara boo xamante ni askan bi nawloo nan la. ci mm-hmm. xam-xam bi ak ci yar bi. waaye dañoo gis ne Siteu ak Modou ñi naan Siteu moo daan. Mm-hmm. ñi naan Modou Lo moo daan. combat bi ban jàngat nga ci def ñu door a dem ci beneen combat bi ngay wax. Euh, général combat boobu fii nga ñëwoon mën na la ñetti weer ci ginnaaw mën na la Siteu mënul fexe ba daan ki nga xam ne mooy Modou Mhm. parce que Moustapha bu Modou Lo nekkee moo am doole. mais dañoo gis ne Siteu du mën a Modou Lo aussi. non dumawu ko. Mhm. bu ñu wax ne duma na ko. lépp lu xew ci bés ba Modou moo ko def. Mhm. te Siteu mëntoon indi lu tax mu daan ko ànd naag ay mbokkam ñëw waaye indiwul lu daan bëri. bëri mi nag bul fàtte ne ay kilifa yu baax ñuy jëfandikoo kurus ñoo nekk ci ginnaaw. am na solo kenn laa ci ñi jëflante moom ci wàllu ñaan am na solo en tant que mara boo xam te ñu bëri xam nañ ne yaa ngi ci ginnaaw mu te feeñoo mhm. ñu bëri xam ne it yaa ngi ciy jëflante ay kilifa mhm. loolu ñun xam nañ si dara mhm. ñu gis ne moodu ay sëriñ jëm àndal stade ñu génnoon ko ba ak waaye teewul Modou victoire bi nan ko bëggee woon amee woon ko noonu yow ba nga taxawee nga ne ma Modou loo day am victoire ci kaw Siteu foo ko tegoon c'est ramli bu baax xam nga seet dafa boo xam ne yàgg naa la ko wax man bokk naa ci sëriñ ñi nga xam ne kenn du jàkkaarloog man ne Aziz kontaan na ma ci wàllu ramli ramli dama ko mën kooku dama ko jàng xam ko métier la boo xam ne wax naa la ko waxati la ko waxati la ko mhm. métier boo def treize ans mhm. judd ci ñu nampal la ci nga xam ko gëstu ci mhm. xam lan mooy ramli lu ma la ci waxul yaa ngi tardé ku jàkkaarloog man woo ma téléphone danga xam ne kii may waxal dana la wax lu leer loo xamante ni li ngay teg sa bët la mais ñu bëri bu njëkk gëmul woon affaire seet mais yow bokk nga ñi gën a tax sax askan bi xam ne seet am la seet nag xam-xam la boo xam ne nit ku nekk jullit war na ko gëm parce que nee naa la ram ne yoon yàlla Idrissa la ko yàlla wàcce woon mhm. xam-xam bu fi yàlla wàcce woon ba léegi moo fi ne mhm. ku am yitte rek xam lu nekk mhm. man yitte bokk na ci li ma dimbale nee naa la ram ni ñaari bunt la ban ak ban buntu fukk ak juróom ak fukk ak juróom benn dem na ba fukk ak juróom ñett dem na ba ñaar fukki bunt ak benn loolu sëriñ ci bëri xamuñ ko man dama lay seetal topp la topp la ba xam sax lu ma ko wax ci doomu aadama. am na ragal di ko wax. macha allah dinaa si ñëwaat sax ci loolu waaye ba tey damay xuus ak yow. loolu bëri na wax naa la ne la jot naa ay saaga jot naa ay menaces jot naa lu nekk. du combat bi passé sax si ñoom ñenn si ñoom. Hmm. nee nañ ma combat cité bi bëgg na bëgg nañ ma liggéey ci. na leen du ma ci liggéey. Hmm. parce que man yar moom lépp lu mu amul man bokk ma ci. man yar ak jullit. ak baax ak yeneen nit ñi jàmm tudd yàlla sell ci loolu la am na solo waaye nag dafa am beneen combat bi nga doon wax sànq nga ne dégg nga ne ñu ngi dox diggante Siteu ak Balla Gaye 2. Mm. doo gis ne dafa pare ci Modou Lo mm-hmm. automatiquement dem plateau nee dañ ko doon xeex waaye nag nee na Balla Gaye 2 la soxla. Mm. tombeek Aziz Ndiaye woote ci plateau bi. Mm. combat boobu Aziz Ndiaye bëgg na ko Siteu bëgg na ko. général Siteu ay mbokkam nañ ko préparé. Mm-hmm. gis nga carrière fii lay defaroo waaye fii la mën a yàqu. mais am na mbooloo. mbooloo du dara xam nga mbooloo moo xam ne yow Siteu nee naa la am na mbooloo yàlla may na ko sens boobu waaye ginnaawam ba léegi baax ba tey ginnaawam baax gis nga bu ba dugg ci combat bi ñoom Aziz Ndiaye du ruumandaat nii ku nekk mm-hmm. di ci wax sa xalaat nii ci mm-hmm. ay pexe lañ nekk ak moom mm-hmm. bu ci duggee dina am déception bu ko métti Balla Gaye jamono bii may wax ak yow dafa samp waa samp bu bees dafa samp waa samp bu bees te nekk ci ginnaaw am na xaalis xaalis lu mu lu mu dugg am na solo dinaa xuus ak yow ci combat Balla Gaye 2 ak Siteu parce que njort naa ne mën naa taxaw waaye nag dafa am benn combat bu ñuy wax diggante Modou Lo ak Sa Thiès mu nekk combat boo xam ne ragal na ni sax a euh, dafa nekk xam-xam boo xam ne xam-xamu dafa am man lu may liggéey ci kurus am lu may liggéey ci ay jën am lu may liggéey ci meewu nag am lu may liggéey ci meewu gëlëm am lu may liggéey sax ci ndawal jox ko xaj mu lekk ko nopp li ma ci sama baay jàngal xajul ci émission wax naa la ko man kenn ma woo téléphone xanaa lu ma bëggul def ci nopp waaye lépp lépp lu ma ci bëgg a def incha allah rabbi bu ñu gisantee ma dafa la ko mm-hmm. waaw am na nekk nit koo xam ne xëy na lu may nekk Dakar bariwul tout le temps maa ngi Saloum maa ngi ci yeneen yitte mm-hmm. waaye jot ma jafewul te ku ma jot dinañ waxtaan na la bu fekkee farata ma la tax am na solo euh, ba tey dañuy xuus ak yow ginnaaw bi nga waxee lool dañuy gis ne Modou jamono bi xam mi ngi ci biir stade bi ñuy waaj a soufflé mel ni yaram bi dafa tënku woon. Mm-hmm. mu mel ni am na lu muy jàng. musluwaay lan mooy njëriñam. musluwaay loolu nag ay kifaaya la. ay mag ñi Saalum ñu ngi koy woowee Saalum Saalum yi nga xam ne seen asraar bënn na am nañ xam-xamu asraar ñooñu xam nañ ne Modou am na ginnaaw. Mm-hmm. gis nga sangu baax na waaye gis nga am na aaya yoo xam ne ci alxuraanul karim boo ko tiimee di ko jàng. jàkkaarloo ki sa noon wala ki nga war a xëccool dara mhm. yàlla dalay yëkkati wa jaala kalimatan lazina kafaru suflee wa kalimatullahi uliya mu ngi nekk suratu taw Modou Lo bokk nañu ay kifaayam ayatu kursiw dafa nekk ci kifaayu yi Lo bismillahi rahmaani rahim bokk na li koy li koy yëkkati te Modou kaay ma xamal jamono bii pour ngembam takku suuf nit daan ko góoma ko mais ndax bi da ndax mën na noo xaar diggante Balla Gaye 2 ak Siteu du fekkee xaalis bi leen tegal bëri na. waaw mën naa am waaye di toujours rek ci Balla Gaye lay gën. ci gën Siteu combat boobu mën ta faxa faxa bu amul ñaan dëgg parce que man seetaguma ko. mais Balla Gaye 2 li ma ci seet tuuti nii rek yaa tax ma def. mais Balla Gaye 2 Modou Lo mën na noo xaar combat boobu wala. waaw combat boobu mën na am. mën na amaat troisième fois mën na man mën na amaat mais ci kaw ñu neexal Modou Lo li mu ci laaj dana bëri trop. dana bëri waaye bi ma gën a gis nga xamante ni seet naa ko ba woo la fii mooy Sa Thiès Modou Lo. Sa Thiès Modou Lo. moom nga gis. moom laa gis ba woo la ne la kaay ñu waxtaan. ah si yàlla yaa ngi waxati par exemple tey Modou Lo ak Sa Thiès su fekkoon ne jàkkaarloo noonu war a bëri. Hmm. tey jii mu nekk combat boo xam ne askan dinañ ko xaar. Hmm. balaa ma siy xuus sax damaa bëgg ñu waxtaan tuuti rek. Hmm. ci li xam te ne yaa ngi ciy yaa yaa ngi yëngatu mu nekk mbirum ngóora parce que combat boobu damaa bëgg ñu xuus ci bu baax a baax ngóora lan nga ciy liggéey ngóora nag wax naa leen ne ko géejaan gi laa ciy def géejaan gi ñoo koy defar saalum di ko andi Dakar jamono bii may wax yow li ma ci def sax bariwul maanaam man chaque 15 jours danaa ko andi Dakar hmm. moom képp koo xam ne góor na yow sa néegu say neexul bu buñ jëfale bu ñu déggantee dinañ la jàppale incha allah am na solo kon képp koo xam te ni bëgg nga ngóor ak sangat parce que sang mi ngi ko doon leeral waaye euh, xuusuñ ci woon baax am na sangat boo xam te ni daf koy joxe te ay mbër yu bëri dañ ko fiy jël si mm-hmm. te da doon jàppale Modou Lo di ko jox ay sangat moo tamit mm-hmm. lan nga ciy liggéey ci sangat mm-hmm. yi nga xam ne mag ñi Saalum xam nañ ko man nee naa émission bu ma def su ma paree kilifa dana ma woon ah yaa ngi génnee ti mbiru mag ñi man leen mënta ñàkk mhm. xam-xam faaw ñu génne ko pour dimbale askan bi àdduna ak dunyaa daaru fanaa kër guy mhm. jeex na mhm. moo tax li fa waaye def defal lu la neex ci àdduna waaye bési nga ñëw dañ la koy fay macha allah moo tax man lépp lu may def suma wàllu liggéey du ma riirandoo du bës du dara njub juddu ci askan xam ko namp ko di ko liggéey métier la ma asra dama ko gëm général lii nekkul loo xam dama koy def pour dóor wala pour ut man saa nit ñi ñëw damay liggéey saa ma mm-hmm. feeñ damay liggéey loolu ñu ma xam-xam nañ ko mm-hmm. mais lii dafa nekk xam-xam boo xam ne képp ku ko jot mm-hmm. sa mbir dana dox ni nga ko bëggee macha allah yaa ngi doon wax sànq combat bi xam te mi ngi dox diggante Modou Lo ak ki xamante ne mooy Sa Thiès combat boobu tey bu taxawoon chance bi ci kan ban côté la féete boobu bu taxawoon Modou da ci am ndam kan ak kan taxawee ak Modou si ni ma gisee seet bi seet nag moom day dem ba si kanam mu lëndëm di leer waaye jamono bi biddiwu Modou dafa kawe nga li ma waxoon rek laay wax général Modou waxuma du daanu ndax li xaw suba xaw ma ko waaye samaan bii mbër yi gisuma kenn mën na ko ca daan. am na solo ba tey dañuy continuer tuuti rek. ñu door tëj jataay bi parce que ñu ci amal ci wax léegi mu jeex. Mm-hmm. waaye mbirum jaaro. Mm-hmm. ak samp doomu aadama ci lañ bëgg a tëjee suñu waxtaan lan nga si liggéey. alhamdulilah wàllu samp nag kurus lañ koy def général lii xamu ne kurus la yow miin nga ma miin nga daara ci. Mm-hmm. tout le temps da nga may woo na ma Serigne Assis bëgg naa ñu gisee man na la maa ngi ci xalwa mhm. depuis kañ ñu nga bëgg a tourner vidéo bi. depuis kaw combat bi mu jàllee. waaw ba léegi. woo naa la ba sonn. woo nga ba sonn du may am jot parce que su ma lépp kurus la man nee naa la lépp lu may def ci kii laa koy réglé képp koo xam bëgg na sa biddiw di kawe da ngay fexe déggante ñu defal la xalwa nit ñu bëri na xamatuñ xalwa xalwa du lenn lu du duwee. Mhm. du lenn lu jàngal xuraan. Mhm. du liggéey latif. loolu macha allah di woor sell di ñaan yàlla mi nga xam ne lépp mi ngi ci loxo am na solo jaaro nag lii laa ciy liggéey gis nga ko mm-hmm. kii moom lay takk lu mm-hmm. amul seede baaxul doo am mbir mooy réglé ci wàllu papier mm-hmm. wala wàllu kayit wala ku tëju jaaru baa ngi nii maa koy defar di ko joxe buñu déggante àla kulli àddina lay dimbale incha allah lan ngay tàggatoo euh, général maa ngi lay gërëm di la sant di wax ne képp koo xam ne bëgg na am seet bu leer ci mbiram na fexe dégganteeg ñun nee naa la ramli bokk na ci xam-xam bi nga xam ne. Mhm. man maa ko man maa ko dàq. bokkuma ko pour pour que ñu baal ma ci kilifa yu may dégg waaye bëri na ñoo xamante ni dem nañ fu ne gisuñ leen <laughs> bu ñu ma jotee téléphone na ma alhamdulilah kenn dàquma ko dama ko jàng. am na solo fi ñu tey balaa ngay tàggoo sax dafa am loo xam waxoon ko fi ay jamono. muy Nabou Leye. Hmm. coowal Nabou Leye gis na ne ba tey mujjul fenn te waxoon nga ne du mujj fenn bu nu amul chance. waxoon naa ne du mujj fenn day génn génnul. génn na waxuma loon Siteu dafay daa Modou Lo day daan Siteu. Siteu hmm. mënu koo tër. dañuy ñaan yàlla dellu ci moom. ba tey euh, Yékini aussi bi ñuy tuumaal naan dafa dugal loxoom ci combat bi ñu bëri nee nañ Yékini laalewu ci. laalewu ci. nga ne Yékini bu far am sax si compte si compte Modou Lo lay gën a far. ci Modou Lo lay gën a far Yékini comment Yékini nañ ko ci génne. xaritam xam nga man euh, xam nañ ma. bëgg sax may mais xam nañ ma si euh, bu fàttee général nag wàllu. mais si nee na moom nijaayam la. nijaayam la mais nag Modou loo xaritam la. xam loolu lépp lu am lépp lu am yar moo ko may gis nga wax ju bëri ji nit ñu nekkee nii. Mhm. nekku ci daf leen gën tamit mbër yi ma gis moo leen gën a sell jamono bii. Mhm. samanam bii ñu jamono bii ñu nekk moo leen mën. am na solo macha allah lan ngay tàggatoo. alhamdulilah di wax ne ñu ngi ñaan yàlla euh, yàlla mi nga xam ne lépp mu ngi ci loxoom. mu mhm. dimbalal ñu boppam. yàlla def ci réew mi jàmm. assemblée bi waxoon naa leen ne la ñoom Ousmane la yàlla jox na leen ndam li mm-hmm. nañ ñaan ci réew mi jàmm di joxe benn sarax nag mm-hmm. képp koo xam ne borom kër nga na nga fexe génne benn kilo ceeb benn kilo suukar nga joxe ko mm-hmm. baax na ci at mi nga xam ne mooy 2025 bi macha allah